yang suka digoyang chers internautes yu Ken Bougoul TV dal jàmm dal jàmm ci li gën a fës ci yi ñu commencé kook yéenekaay mi del su nekk ñu gis ko ci réew mi yéenekaay bi ne violence gi nekk ci réew mi nag buñ ci waxul dak dina ëppi loxo ndax booy xool ci mois de mars lu ëpp fukki nit ak ñeent ñàkk nañ seen bakkan boole koog lu ëpp téeméeri doomu aadama yéenekaay bi dalal su am benn justice lii nag lu jëra taxaw seetlu la direct Mamadou Abdoulaye Guissé muy ci mairie bu Pikine bii moom Mamadou Abdoulaye Guissé di ñu xamal li gis nga xeexum ñàkkum liggéey bii ci jeunesse bi leen dong moo koy faj tam moo di jox gëdd culture bi ndax jeunes yu bëri ci la ñuy yëngu Mamadou Abdoulaye Guissé di xamle ci biir yéenekaay bi dee man nag waa Pikine xam nañu ma ndaxte 2014 su dem naa ci élection locale yii te man kese àndoon te amoon naa 97 conseils municipaux booy xool ci Sénégal gi yépp li tête de Macky Sall attaqué ko ba noppi tegal ko siège xamal na tangum yi nekk ci bir benn bokk yaakaar ne képp ku ci xaar Macky Sall bi daal lay tabb di nga nekk candidat ci sa gox wala yaagi ngi nelaw yewogo ndax listam bi pare bu buy da fay xaar rek dernière minute ngir mu publier ko bu ko defee nag képp ko xamati ne amoon nga yaakaar bokk ci élection yi da ngay mujjé lem sa geen Adama Faye di xamlé ci biir yéenekaay bi de man nag samp na sama coalition tuddé ko défar sa gox té sama caution bi di 30 millions de francs CFA déposé naa ko bu yàgg critique yéenekaay moom dafa ubbi xët bi yatt jagleel ko suñu coow passeport diplomatique yi yéenekaay bi na assemblée nationale la fim toll ni nak caaxaan jeex na dëgg ci des ubbi na lu session ba li ñëpp di xaar nag fi toll nii moo di ñu yëkkati immunité parlementaire député yi di Biaye ak Sall yéen bi du ñu ne seen ordre du jour bi nag ci jotaay bu njëkk moo di renouveler seen bureau bi taxawaatal commission yi daal di soog a yëkkati immunité parlementaire yu yi nga xam ne yëkkati nañ ko ca biir assemblée nationale commencé ko ca ba jamonoy tey jii député yi ñuy yëkkati seen immunité parlementaire ngir Sarr ba ci Ousmane Sonko limuk député yi nga xamante ne yëkkati nañ seen immunité parlementaire ci assemblée nationale kenn xamul lu mu toll tey ji ñoo ngi wax kaaw Boubacar Biaye ak Mamadou Sall ñu tuumaal leen mbiru trafic de passeport diplomatique ñu fas yéene yëkkati seen immunité parlementaire ci semaine bii l'observateur moom dafa ubbi dossier bu yaatu jagleel ko dajee bi nga xamante ne mu ngi am ci duwaanu Dubaay Macky Sall nag discours ba mu fa njëkk

tuumal yi sa violence yi nag dafay arrêté dootuñ ko nangoti ben yoon nga koy jël di ko tuumal wa ben bokk yakar nak président Macky Sall talu la amul sa jot kon nak sa wax yi ñaaw yi ak sa jëf ji dang koy arrêté yéen kay bi di ñu xamal ne waa APR ñu ngi xamu tal bi nak président Macky Sall kay àndandooram yi au lieu que ñu fay tal bi ñu ngi xamu tal ba Sud Quotidien moom dafa delsu ci rentrée scolaire bi yéen kay bi di ñu xamal ne bëri na ay jafé jafé yo xamanteni ne suñu école bi mom la nekkee na élèves yi ak enseignants yi école yu bari dañu am abri provisoire ci ay sàkket lañuy jaggé mbass bi di covid 19 taxawa yi dess lool enseignants yi di menacer def ay grève ba ci école yi nga xamanteni dafa am inondation lépp lépp yéenekaay ci yéenekaay bi dañoo xamal ne kay bi defaat taxaw seetlu ci ubbi ci bi te ñuy xamal yi ci ay école yoo xamante duñu gaaw a jàng élèves yi bëri na la toog seen kër yi ba seen école yooyu daal jàng rawate na fële ci diwaanu Vélingara enseignant yi ma yëgal leen ko président dafa tukki talul leen ngay ba yow ngeen dimbale élèves yi rek dem jàngale ji baax na ba suba jàmm incha Nous a xam ana fan lañuy ñuy produit yu kenn bëggul bu Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha Sy ñuy yellu di leen wax adresse baa ngi noonu bu ngeen ñëwee fi ci résidence bi nekk ci poste ci arrêt table Tiwawon suñu ay numéro 77 602 15 63 76 378 17 ñi nga xamanteni ni dañoo am cas yu urgent xaar mën ci numéro bi di 77 030

gaaw dibeer bi nekk bésu sàkk pexe bu delloo ci rendez-vous privé yi ci di kenn bëggul bu Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha Sy daal dina leen di sàkkal ñaari bés muy altini ak àllarba bu ñetti waxtu jotee jàpp juróomi waxtu kenn bëggul bu Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha Sy gaaw ci tawat yi gaaw ci poche yi